jàppandal sama mbir fecci pas-pas ak tënku bi sama làmmiñ fasu te tënku ba yu baax yi janoog man mën a sama kàddu ñeenteelu bunt bi mooy buntu juddu gi moo waral ñëpp di consulter burdatul madih ak hamziyat al imam al busiri ni ko moolana cheikh sidi ahmad tijaani radiallahu anhu diglee ak daa defee borom rafa niqaab mu sidi sukkari nee na jaadu na ci taalibeb tijaan jamonoy gàmmu mu consulté téere imam busiri bi di hamziya xam ngeen la ca xew ak sidi ahmad tijaani ak burdatul madih ci gàmmu ba ni mu rogaatee ba ak si Sénégal yonentu sallallahu alayhi wa mi ngi judd woon ñaar fukki fan ci weeru avril 571 ñi ne 570 fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu ñeent fukki at balaañ koy yónni juróom fukki fan gannaaw xew xew abraha bu mag boobu ne dafay toji kaaba gee yaay ba yàlla ci moom alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil لأن أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم yonentu sallallahu alayhi wa sallam juddum gu jekk gu rafet gu kawe gu màgg gi kaar moo wane teeyaayu moo wane teeyaayu cosaanam ni cosaanam teeye ni cosaanam baaxee ni cosaanam selle juddu gee ko wane ndax luy topp ab liir ci tilim mbaa lu ñu war a dindi rek toppul yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne yaa tiba mubtadain yéem naa teeyu tàmbali minu ci moom ba muxtatan ak tëj yonentu sallallahu alayhi wa sallam fiñ ko tàmbalee teey na waaye fiñ ko tëjee dee moo gën a teeyati ruux ruugi ànd ak yaram wi dikk tey bu dee aadama yonent yàlla muhammad a bu dee maam bu moo gumu moom moo agsi tey sallallahu alayhi wa sallam yi moo leen tëj ndax moo gën a muy wane it rëyaayu ki juddu xew-xew yu rëy yi kaar yi nga xam ne xew nañ ci juddu gi kéemaan yi boo leen doon lim benn ci jeex yonentu sallallahu alayhi wa sallam kéemaani yemul rek ci baadoole ci buur yi la njëkkee yow mun tafarrasa fihi lfursa annahum qad unziru bi xululi lbuusi wa niqami wa batay iwaanu kisra wa huwa munsadicun ka shamli ashaabi kisra gayra multaimin bi yonentu juddoo la Faris muy empire bu bële ca euh, les Perses l'empire des Perses ak doole ju màgg ja amoon amoon keroog bi yonantu juddoo lañ xam ne seen doole ja fay na lu tax iwaanu Kisra wax nañ ne ëpp na junni at kenn xamalu ko fet waaye keroog bi yonantu bi juddoo balcon ya fukki toj toj ak ñeent lañ toj bañ seetee ci lañ xam ne ndekete yoo fukki buur ak ñeent leen dese ci ñaareelu xilaafa dégg nga lislaam mooy ci xilaafa sidna omar la seen lépp fay lislaam dégg nga fees faris ñëpp di jullit ci muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu nag ma nga yëglu keñ keroog bi mawlaana rasulillahi salallahu alayhi wa sallam juddoo mu ne wan naaru min esafid alayhi wan naaru saahil ayni min sadami mu ne safara si bu fekkoon ne ko am nooyi la kerek la nooyam fay safara sañ daa jàmm ndox ma daan naanee muy seen source de vie dex ga bu fekkoon ko am bët la kerek la bëtam nelaw dootul xoolati mukk wa saa saawatan raadat buhayratuha wa rudda waariduha bil ghayb xiina dami nee na ngéej si saawatu xaw ma la kadaar rooti foofa di kontaan waaye keroog ba muy ñibbisi mer la ñibbisee ndax lan géej ga dafa ngiis maanaam ndox ma dafa ngiis ndoxu ngéej sa noo ñu koy misaale mu ne ka anna binnaari ma bilmaai min balalin xusnan wa bilmaai ma binnaari min darami mu ne booy xool safara sañ daa jaamu dafa mel ni ndox a fa nekkoon au lieu nga gis fa doom bu fay waaye tooy tooy nga fay gis waaye fi ndox mi nga xam ne moom lañ daa naan te jàpp ne moo leen di dundal xaw ko sax yàllaal xam nañ ne keroog ndox du yàlla yàllay jaarale dund ci ndox wa jaal naa min al maai kulla xay boo xoolee fa ndox ma ne woon da ngay foog ne safara fa tàkkoon ku mën a wéy la kaar imam buusi loolu kat mi ngi wane ne am na ko juddu tey xam nga yonentu sallallahu alayhi wa sallam eh, njël lim ngay wax ndax judduwul guddi judduwut bëccëg ci diggante guddi ak bëccëg la judd xam nga waxtu wi yonantu juddu sallallahu alayhi wa mooy waxtu wi nga xam ne loo lu feebar métti métti boroom dafay am jàmm nga gis nelaw dikkal ko ndax ndax barke yonantu bi sallallahu alayhi bu judd woon ci guddi kese guddi ree dafay dafay ree bëccëg waaye bu judd woon ci bëccëg bëccëg dafa ree guddi te moom dafa mànd dafa mànd bëcci ak juddoom sallallahu alayhi والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من مغنى ومن كلمة من معنى ngay wax xaw ma ku bind مغنى من معنى ومن كلمة والجن تهتف jinne yaa ngay woote walanwaaru saatiatun leer yaa ngay jolli walxaqu yadharu dëgg feeñ na min maanan ci maanaa wa min kalimi ak ci kàddu ku am yëg yëg nga ne dëgg feeñ na ku am dégg dégg nga ne dëgg feeñ na ndax li nga dégg ñuy wax عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم yéeféeri jamono joojee gumba nañ tëx nañ li kéemaan yi bëri bëri nga xam ne ku mën a gis-gis ko ñoom seen bët a gumba gisuñu ko li kéemaan yi di bëri bëri bruit di ko rëyle di ko màggale nga xam ne ku am dégg-dégg ko ñoom tax nañ moo tax gannaaw bu leen seen bu xaaba yi xamalee ne dina ah, diinay kéeféer de bés ni ki tey am na jafe-jafe lu tax mooy diine jibaax dikk na waaye terewut ñu gumba tëx loolu rek lañ gis wa baadama aayanu fi lufqi min shubin munqadatin wifqa ma fi l ardi min sanami keroog bi yonentu sallallahu alayhi wasallam juddoo lañ tëj buntu asamaan kenn amatul jinne yi daa dem di sàcc ak seytaane ya daa dem di sàcc dégg ay jum ñoo jóge asamaan di daanu ci seen kaw foo xool rek gis jum yi topp leen ñuy daanu ku janoog loolu ca kaw ànd ak janoog li nga janoog ci suuf muy xërëm keroog xërëm buñ daa jàmm ci kaw àdduna ci suuf nga fanaan buñ yëkkatee teg rek nga fanaan ci suuf buñ yëkkatee teg nga fanaan ci suuf ni nga xamee ni buur yëpp fanaanu ci kaw lal bu ñu defaree nga yéeg rek lal bi daanu ba ñu xam ne ah pexe amut ànd ak loolu yëpp ñu gumba ba gisuñ dëgg tëx ba dégguñu dëgg lu ba nanguñ ko tut xata gada an tariqi wahim wahimun hazimun min ash-shayatin yaqhu ihramun hazimi xata gada an tariqi lwahi yoonu asamaan nga xam ne mooy yoonu wax wi wax yi foo xool rek gis mun hazimun min ash-shayatin yaqhu ihramun hazimi seytaane bu daanu beneen topp ci boo xoolee seytaane yi nañ daa nañ doon dawee guddi googu mu ne kaannahum haraban abtaalu abrahatin aw askarun bil xasa min min raxatayhi rumi yu mel ni rek jàmbaar yi abraha ya bañ ñëwee di toji kaaba gi toj si kaaba gi sama borom tabaraka wa taala yónnee leen dégg nga xijaara min sijjin waaw alam yajal kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil termihim bi xijaratin min sijjin yàlla yónnee leen ay njanaaw yoo xam ne ku ca nekk yaa nga yore xeer wu jógee jahannama nga xam ne bu la laalee rek nga jeex takk waaw ñu di leen ko sànni mel ni xeer yu mel noonu lañ doon sànni seytaane yi bi yonentu juddoo sallallahu alayhi wa sallam aw askarun wala sax dañu mel ni xare ba nga xam ne ñoo song yonentu sallallahu alayhi wa sallam yonentu alayhi salaatu wasalaam jël jàmburaay rek dégg nga daal di wax la muy wax rek sànni leen ko waaw نبذا بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم yonentu sallallahu alayhi wa sallam bala mu sànni xeer ya dañuy sàbbal yàlla ñëpp di dégg bu fekkee sidna Yunus alayhi salaam ca biir jën wa ca biir géej ga la doon sàbbalee laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin xeer yii moom ci tënk yonantu wu tedd wa tënk yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wu tedd mi lañ doon sàbbalee amul bëkkan buñ xam amul roox di sàbbal moo gën de ab yonant bu mag di sàbbal ci biiru jën buy dund doonte yéeme na lool hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والماء